mela yi nga bi waxoon la làmba sëñ Mbàkke Madina du woon kuy jàmba ngir ngeen mën a jot nag suñu vidéo ci Madina Vision moo xam nga nekk biir réew wala bitim réew abonné fi fa inna xayra naas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله allahu min kulli karimin akramu manaamahum xaada lahu takarrumu aslim lahu kullu kawn imaani wala simin ihsaani lirrahmaani waajih bi suuri bila kufraani tufa isaabuhu maa niraani bismil karime man ma jooy ku yéeme jëfam ja yéeme waxam ja doy waar sëriñ Mbakke Madina بسم الكريم man ma jooy gu yéeme jëfam ja yéeme waxam ja doy waar Sëriñ Mbakke Madina bismil karimi waxam ja ngi lay jooy koor gaa ngi lay jooy saraxee ngi lay jooy yaag Sidil Muxtaar sëriñ Mbàkke Madina jullee ngi lay jooy yi jooy yaa si del Moxtaar sëriñ Mbàkke Madina waa Daaru Xuddoos say giit la ñuy xoos koo ji gis ma ngay noos ak bon du leen gaar sëriñ Mbàkke Madina waa Daaru Xuddoos say géej la ñuy xoos koo ci gis ma ngay noos ak bon du leen gaar sëriñ Mbàkke Madina xuddoos say géej danuy xoos koo ci gis ma ngay noos ak bon du leen gaar sëriñ Mbàkke Madina yaa man ca dool yaa yaa man ca kër yaa yaay jàllale mbër ya yaay làmp njàccaar sëriñ Mbàkke Madina ñay néew ji doole yaa leen di boole ba kenn dootul xoole di jëf di xel yaar sëriñ Mbàkke Madina ñay néew di doole yàlla di boole kenn dootul xoole bay jëf di xel yaar sëriñ Mbàkke Madina yaay sët ci xaadim yaa sët ci xaadimoo bañ naan la xaadim yaay bay sunuy waar sëriñ Mbàkke Madina ci gànnaar sëñ Mbàkke Madina yeesal nga daaru ba ñëpp waaroo sooro ya daaru am bunti gànnaar sëñ Mbàkke Madina yeesal nga daaru ba ñëpp waaroo sooro ya daaru am bunti gànnaar sëñ Mbàkke Madina yaa ñoo ba wuy ji woo wuy jee ña xam ne wuy ji njaarem ba baataan Madina gëm naa la yaakaar naa te ku la bañ fii kamaa la ma doy loo naa la jàpp naa la dunya wal aaxiratu sëriñ Mbàkke Madina séddoo naa al yawmal bu ñëpp teewee nga bàyyi xel ci man mii bu say jëf ñaawee sëñ Mbakke Madina ala yowmal xiyaam bu ñëpp teewee nga bàyyi ci ñun bu suñu jëf ñaawee sëñ Mbakke Madina jox nga nu loo xam ne xalaat ko yombul cey kenn kii daal day na lum nu faggul sëriñ Mbakke Madina ko amul la gis nag danaan xeewal gi ci nun la yam waaye sar na ca noon ya jëy gi sëriñ Mbàkke Madina ko amul ak gis danaan xéewal gi ci nun ñii la yam waaye sar na ca noon ya jëy gi loo ca wax mu nee ko wallaahi duy jaaxaan ma ñëw leeral ko mas naa bi jàng xasiida lam yabdu misal Mustafa muy déglu saa kaddu ba ma jàngee ba si ci yee laa xam ne sëriñ Mbàkke nag na sëy na ci yeneen bi wa nabi wa rasul wal xalil wa huwa al abib wal imam wad dalil baraahu al badiu min xayri jamal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 sëñ Mbàkke Madina du woon kuy jàmbo ngir ngeen mën a jot nag suñu vidéo ci Madina Vision moo xam nga nekk biir réew wala bitim réew abonné fii fa inna xayra naas